juróom ñetti fukki daara ak lu teg ci biir Kébémer Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba jébbal leen ay ndimbal niki ni mu ko daan defee ak yi li weesu Serigne daara yi fësal seen mbégte. jëf ju baax la joo xam ne sëñ Bassirou si Khadim Ba def na ko tam jëm ci daara tam defoon ko daaw defaat ko ren fa tabaarakallaahu mu nekk jëf ju rafet joo xam ne bépp Serigne daara bégal na la ndax ñun ñëpp benn cër lañ euh, loo def ci ñun rek ci lu baax ñëpp ko yëgandoo ñu yokk ci baax ñun ñëpp ko yëgandoo. te lii mu def tey jëf la joo xamante ni jëf ju rafet la joo xam ne bàyyi ko ne fi war a bàyyi ko mais jëm na fi mu war a jëm ndax mu bàyyi ko ci kilifa goo xam ne kilifa diine la ñu séntu ci ak mbaax njabootu daara nekk njabootam mu jëm ci daara alxuraan yi nga xamante ni ñoo yor liggéey bi lislaam ñu nekkal leen ci daara ja kon sëñ Bass defati nga defati nga lu baax ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla nangu jëf ji te eh, sëriñ daara yi ñëpp ñu maase defal la ñaam yàlla nangu nangu jëf ji bu baax a baax te xam ne lu baax moom mënut weesu lu baax ak cant yi mënut a weesu ak cant kon nag ñu ngi lay ñaanal ci barkeb alxuraan di la ñaanal ci barkeb Serigne Touba yàlla mi tax ngay jëf yàlla nangul la sa jëf ndax lu ma téeméeri daara yu manqué tuuti juróom-ñeent fukki daara daara ju ne nga jë nga jëflanteeg moom ñi am ceeb diw ñi am leneen ay ambloo jëf ju rafet la yoo xamante ni ñi mel na yow ñëpp buñ ko jëfee ak ñi yàlla mën loo seen bopp yi ñu jëf dana daara fan nekk seen rongañ dana gën a néew te seen seen kàttan dana gën a dëgër ban gën a mën a dimbandikoo téerab yàlla ba gën a mën a liggéey lislaam di wax ni tey li xew fii ci kër sëñ Basiru Xaadim Awa Ba mooy nam baaxoo di def rek saa su nekk weeru koor bu nekk mu génnee lu takkoo takku ci alal jënde ko ay ceeb ak i dëwlin café suukar lépp loo xamante ni bii rek euh, doomu aadama dana ko aajowoo pour moom a jagal kooram mu yëkkati ko jox ko sëriñ daara yi defoon na ko daaw defati na ko ren te li mu def am na solo lool ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam lool yàlla barkeel ay yëngoom ñun dañuy wax ne ñun waa Kébémer euh, sëñ Basirou Mbacke mooy sunu Abdoulaye Dia bu Sénico parce que Abdoulaye ku ne xam na li muy def mais sëñ Basit moom it li muy taxawaay li muy taxaw fii rëy na lool ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla rek gën koo kàttanal di ko sant si turu sëriñ daara yëpp. di kontaan ci jëf ji nga xamante ni doomi daara moo ko defalaat daara ba tey muy sëñ Bachirou Mbacke Khadim Awa Ba. nëgë ni daaw la ko defoon dajale ñu ñun ñëpp def teraanga ju mat ren mu ni incha allah da koy baaxantal defaat ko kon ñu ngi koy ñaanal suñ borom subhaanahu wa taala comme ni ko imaam Malick Ndiaye waxee fii ci département Kébémer ak commune Kébémer daara benn daara jooyul ndax suñ Bass mi ngi fii taxawu daara yi macha allah nim leen war a taxawoo lépp kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk fanam yokk mënam lépp loo xamante ni mën na ko yàlla na ko yàlla def ndax lii rek moom moo jaadu doomi daara taxawu daara lii rek lañ soxla. jàng alxuraan wëlbatiku yàlla may la ay teraanga nga delloowaat ko ci alxuraan. duñ ñu ndax lii ñun ñii dëkk ak moom ci loolu la nekk korite mi ngi ci koor mi ngi ci tamxarit mi ngi ci lu mel nii kenn ku ne dana indi ci sa kër teraanga yoo xam ni daan la doy ci bis yooyu daaw mu boole ci daara yi ren jiit mu defaat ko kon ñu ngi koy ñaanal yàlla aw fanam gudd ak manam yokk lii daal lu am solo la ñu koy seedeel ñépp di ñaan nag ay kemam bari fii ci departement Kébémer ndax kii kat bu ay kemam bare sëriñ daara yi danañ gis seen bopp seen daara dinañ mën a toog am luñ loo xamante ni danañ ko toogi seen daara ba jàngale téere suñu borom bi subhaanahu wa la rawaatin nag mu defe ko ci weer wu barkeel wi weer wu euh, nga xam ni léppam aw yiw la weer woo xam ni njëlbeen gi yërmande la digg gi njëggal la mujj gi goreel la ci safara tey lépp loo ci def ci aw yiw dana wuuteeg nga def ko ci weneen weer kon bu ko defee ci weer bi ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan ñi mel ni moom li suñ borom naan li misli haza fal yaxmalil aamiluun wa fi zalika fal yatanafasil mutanafisuun kon ñi ngi woo ñëpp ci lu mel ni léegi moom comme sëtu Sëriñ Tuubaa nag loolu mënul ñàkk ndax sëriñ tubaa ne wa axri naa ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma kon bu jëfee jëf ji jëf na ko fam ko war a jëfee muy jëf joo xam ne nag ni du guléet ay yooni yooni yoon ngi nii ci ay jamono yu wute fépp foo xam ne jullit yi seen xel mi ngi jëmaat ci yàlla rek sëriñ Basiiru fexe ba xool ñooña ca la nekk la koy yëwénal ci jëf ci li mënta ñàkk ci dundu doom adama te suñu borom ci boppam garaalante moo ko garantil nit ki muy lu jëm ci walu biram muy lu am solo muy firndel ak di deggal kaddu gog nga xam suñu borom dako wax daan du ma benn biir diko ko xaar te duma ci def lu ci lek waye nak suñu borom du wacc di lel kenn waye nak ci biiri jaamam ñi dégg wax danan gor gor lu ba lepp lu nu am ci abu ñam dan ko jël fess ko yene bok ak ñi nga xamanteni ñom ñoy julit ñi waye nak waxtu ne serigne bas jëfëm ji mel na ne bu nu woowee daara xaj na ki nga xam ne ci daara képp la bokk mën naa jàpp ni jëf ji ci daara képp la yam dafa fekk ni lu baax loo gis am na fu ñu gën a rafetlu nga tàmbalee ko fa kuy jëfal yàlla itam am na kun jàpp ni boo ko jëfalee jëf ja àgg na ci yàlla te kooku mooy lan mooy ñi fi nekkal suñu borom subhanahu wa taala teel ko kàddoom gi muy alxuraan mooy moo ñooñ daara kon lépp lu muy jëf da koy tàmbali ci ñi gën ci nit ñi muy ñooñ daara ñi yor alxuraanu karim tey ñii ngeen gis tey ñu nekk fii mën na ne lépp lu fi baax ñoom ñu ñoo ko baaxal te boo xoolee seen i mbubb mën naa am dana oyof nga xool seen i melo mën naa am dana donga waaye liñ téyeel nit ñi liñ téyeel euh, àdduna ñoom rek ñoo ko téyeel àdduna muy waa daara sëñ Bass nag di fexe ba lépp lu muy jëf da koy tàmbali ci daara jël ci cër ba ca ëpp doole jox ko waa daara nga xam ne lii tey jii ñuy def di ko nataal ñëpp xam na ni ki jëf-jëfam nekk ca kaw mbaa mu toog nële ba mu jëfee jëf ji waxtaane ceeg ñi nga xam ne ñoo ŋànk euh, way jàngalekatu alxuraan yi noppi woon na ca waaye nag mm, képp koo xam ne jëfal na la lu baax war teefu feeñal loolu warteefu teefu siiwal loolu maanaam yow moomu lu jëfal lu baax moom kenn wutul la àpp wala euh, foo yem ci nga jëfal nga fesal jëf jooju noonu moo tax ñu woo ñii ñëpp ñu fi woo muy rajo yi muy tele yi yëpp ngir ñu fësalal ñu benn nitu yàlla bii nga xam ne amaana lii mu mën am na ñeneen ñu dul moom ñu ko mën te moom mi ngi ci yàlla mi ngi ciy daara mi ngi ci lépp ndax képp ku bokk kër xaar Xaadim Awa Ba boo dee dabu ji daara xam ne daara daara yàlla la rek waaye yaag naa am na ay daara yu doy sëkk yoo xam ne lépp lu ñu yor xaj na fa waaye nag ni sëñ bas nekk nit ku général yaatal léppam lépp mu buggal ko Kébémer ak nitu yàlla yi moo tax mu seppiwaat mbooleem kuy daaray alquran ci biir Kébémer gi nga xam ne ëpp na juróom fukki daara ci liñ fi woo tey ak ku nekk lanu yor muy internat yeeg ak externat yi yëpp ku nekk mu fexe ba am lu mu yëkkati jox la ko ndax li fi nekk juróom benn téeméeri saaku ceeb la kon buñ ko génnee ci lii dañuy xam ne des na waaye des gi desul ngir des képp ku dëkk ci dëkk bi mbaa nga soxla ko mbaa ñi dëkk ci koñ bii nga xam ñoom la ko yàlla booleel mbaa ngay aji néew doole ñoom ñëpp da leen koo fas yéenee jox ba mu jeex tàkk tey kay dañu rek nañ jox daara yi buñ demee mu woo ñi si des jox leen waaye ñëpp xam na ni magasin bi la fi nekkoon ca yoon wu njëkk ba biñ ñëwaatee di ko chargé fekk ñu fa benn pepp ceeb mu mel ni kon loolu nekk na lu am solo mu boole ceeg tàndarma boole ci suukar boole ci dëwlin boole ci sax xaalis nga xam ne loolu doon na loo xamante wane na yéeneem ci daara wane na yéeneem ci lu baax kon sëñ Basiiru euh, li ñuy def rek mooy moo ñaanal boppam ndax ki jëf-jëf ji yiw moo ñaanal boppam waaye ñun tamit war nañ koo ñaanal mu yàgg fi te gën koo mën ndax xam nañ ni lépp lu ma am rek mi ngi koy séqanteeg ñi nga xamante ni mooy euh, nitu yàlla yi ak waa waa waa waa alquran ñu xoolee li nga xam ne tey moom lañ fi dajale ci dund lii ci sama ginnaaw rek mi ngi nekk 600 saak yoo xam ni sëñ bi dafa bëgg a xaar ba ñu ndogu ba pare ba lépp daal ba mu am sutura mu génn lépp teg ko ci ay oto ñu yóbbu ko ci jullitu yàlla yi nga xam ni sen loxo jotul sen ginnaw te soxla nañ ko ci koor gi mu yobbal mu yobbu ko ci ñom séddale ko ba mu jeex tàkk señ bi limi sédelé séddalee ko ci koñ jëmalewu ko ci dara señ bi ci jullutu yalla yi lako jëmele señ bi ci ñew doole yi la ko ndax bo xolé amna légui ñu fi ñew ño xamni ñi ngi ngi ko ba njabi amna ño xamni ñi ngi ñu ko ba ndaqaar amna ño xamni ñi ngi ñu ko ba tob kon mu nekk ño xamni ni képp koo xam ni yaa ngi yeewoo biir commune de Kébémer wala département de Kébémer en général yaakaar naa ni sëñ bi li muy def Euh, di nga ci di nga ci am sa wàll. sëñ bi li mu fi dajale tey di ko séddale euh, suukar mu ngi ci dawlin mu ngi ci tàndarma mu ngi ci kafe mu ngi ci ceeb mu ngi ci te lépp loo xam ni tey dajale nañ ko fi rek lu si manqué man maa man maa man maa matalewul ci lim waaye lépp loo xam ni nit dina ko soxla muy dund ci koor gi li ngay ndogoo ba ni ngay reere sëñ bi dajale na ko fii tey pour séddale ko jullitu yàlla yi. sama kàddu bu mujj mooy ñun. lii du lu bees ci ñun. Mhm. te du bees aussi ci képp koo xam ni xam nga kan mooy Serigne Bassirou Serigne Khadim Awa Ba ndax ginnaaw bi nga xamee ni euh, def na ko daaw def na ko ay at yi jiitu mu def ko ren te jàpp nañ ni Serigne bi dina ko def ci at yi gën a ñëw ndax lu mu def ren incha allahu rabbi dina def lu ko ëpp déwén. ndax lu baax rek ko tax a jóg dimbali néew di doole rek ko tax a jóg te lépp lu muy def nag mi ngi def ci sutura. lépp lu muy def mi def ci suuf. lu weesu daaray alxuraan yooyee Serigne basiiru Mbacke Khadim Awa Ba jot jot ndimbal yenn ci kër yi nekk ci Mbacke quartier Serigne Bara ca Kébémer.